yéen jullit ñi na ngeen di dimbandikoo yaari yëf dee leen dimbandikoo muñ mooy tëj sa bakkan ca la nga xam ne moom la sip na di dimbandikoo itam julli. Baay mbooleem tariqa yëpp suñ leen dajalee bàyyi nee na mbooleem tariqa yëpp buñ leen dajalee woon tariqa tijaan moom moo ci gën tariqa tijaan moom moo ci gën mën naa am tey benn eh, benn tijaan buñ ko invité woon ci rajo ruus nay wax loola ci mun naa am tey benn tijaan buñ ko invité woon si tere plateau yi rus naa wax loolu seexu tijaan moo ci gën tariqaam bi moo ci gën seexu tijaan moo gën si wàllu yi tariqaam bi moo gën si tariqa yi xoolal nag la ca bàyyi teg xoolal na la si bàyyi teg kazaba waftara ala allaahi kazaba waftara ala allaahi inni aqulu inna zal wirda bajal inni aqulu inna zal wirda bajal képp koo wax ne képp ku wax ne mën nañoo jël tariqa tijaan boole kaak beneen tariqa mën nañoo jël tariqa tijaan boole kaak beneen tariqa kooku nar na bàyyi nee na kooku nar na bàyyi ne na kooku fen na bàyyi nee na kooku fen na te kooku sosal na yàlla te kooku sosal na yàlla maa ngi wax ne wirde wi moom doy na sëkk maa ngi wax ne man bàyyi wirde bi moom doy na sëkk wax kat wax guñ ba ne diw sàngam fen na waxu guñ ba ne kat diw sàngam fen na bàyyi moom boo fenee ci yàlla danaan la fen nga baay moom boo fenee si yàlla na naan la yow fen na soo waxee dëgg ci yàlla it mun la wax nga dëgg boo waxee dëgg si yàlla it mu ne la wax nga dëgg rawatina ci tariqa tijaan rawatina ci seexu tijaan rawatina si seexu tijaan kon képp kuy wax ne tariqa tijaan mën nañ ko booleeg beneen tariqa kon képp kuy wax ne tariqa tijaan mën nañ kaa booleeg beneen tariqa baay nee na kooko fen na te sosal na yàlla baay nee na kooko wax loolu fen na te sosal na yàlla yii nag la sëriñ bi doon wax ne fit boobu baay amoon yàlla na yàlla jox ko xaarifu lii nag la Mawlana Baye doon wax fit boobu Baye amoon yal na yàlla jox ko aarifinu billaahi. tey Saaliw bu doon waxtaan ba gis ab xaam bu fen. tey gis ab xaam bu fen. mën naa am ko bind mën naa am ko wax ndax ragal. mun naa am du ko bind naa am ko wax ndax ragal. te bu sosalee yàlla du ne ko sosal te bu sosalee yàlla it du ko ne yow sosal nga yàlla. kon ma ne fit woowu sëriñ bi amoon nemmeeku ko ci Baye. kon mu fit boobu Mawlana Baye amoon nemmeeku ko ci Baye Niass. ma ne ñaar yooyu yàlla nañ ko yàlla yàlla doon na loo ci seexu kaamil sëñ bi nee na ñaar yooyu yàlla nañ ci yàlla doon loo si Mawlana Baye Ndaw sëriñ bi nee na bu daan dem seen dëkk Saalum yi sëriñ bi nee na bu daan dem seen dëkk Saalum yi comme ñoo xam ne moom Baye waxuñ ci dara comme foofu dafa am ñoo xam ne Baye moom waxuñu ci dara bu daan dem photopie lay daal di takk bu daan dem photopie bi la daan takk moom mooy Baye fi nga xamee ne léegi kawar gi mu ngi ñuul am yu weex mooy Baye fi nga xamante ne léegi karaw gi mu ngi ñuul am lu weex sëriñ bi nee foto boobu moo ko dàqal ci photo Baye sëriñ bi nee na photo boobu moo ko dàqal ci photo Baye yi ci bàyyi moom amut ci woon négocier amut ci woon dara. si bàyyi ñes moom moom si fit woo xam ne wi bàyyi am ci Seexu Tijaan moom moom la amoon. am si fit woo xam ne fit bu bàyyi amoon Seexu Tijaan moom bàyyi ndaw fit boobu la amoon si bàyyi. xaam yëpp buñ dajee waan terewul jaan yi dina leen sànni dina dina leen sànni jaan yi. xaam yëpp buñ daje woon terewul na jaan yi moom dina dina leen ko ci seen biir ci seen biir. moo xam ngént yi la moo xam dëj la moo xam biir jumaa ji. moo xam ngént yi la moo moo xam biir jumaa yi la. moom li tënkoon nit ñi moom tënkut ko. moom li tënkoon nit ñi moom moom Baye noonu tënku ko woon. nag su boobaa fit la ci yàlla. boobaa loolu nag fit la si yàlla. moo tax Baye wax na ne. moo tax Baye wax na ne. moom mënut ànd ak ñaar. ñaar du ànd ak moom moom Baye nee na ñaar du ànd ak moom. mooy koo xam ne ku tayal la ak ku amul fit. mooy koo xam ne ku tayal la ak ku amul fit. ndax péep yàlla bi balaa nga ciy dund sax fit moo la ciy dund loolu. ndax péep yàlla bi balaa nga see dund sax fit moo la si tax a dund. jërëjëfee Cheikhou Kamil jërëjëfee

kaalawu toog ci siis bu rafet nee da ngay gis yàlla nag mu kaalawu toog ci siis bu rafet daal di téye yet bu rëy daal di yet bu rëy xonqal bët yi ba mu xonq xonqal bët yi ba mu xonq aca mu ngi noonu jëlal seet daal di yëkkati yet ne la aca maqaam baa la nag jëlal daal di xool ne la nag jëlal daal di lay xool mu ne lam ca tegoon nag mooy bu fekkee dañ laa déey lam ca teg moom moo naa naa bàyyi nee na ne nag dañ laa déey bu ñu la déeyee rek subaa da ngay si rek daal di jël buñ la déeyee moom boobaa da ngay yegg si rek daal di jël maqaam bi boo jëlee mu ne aha kay sama waa ji kay ndekete am na fit boo jëlee kay yàlla ne aha kay sama am na fekk yer wa du du yaa du yaa a bi fekk yer bi moom du yow yaa ko tax a jóg moom su paree da jox yer bi sax pour nga sàmmee ko sa maqaam moom bu paree da lay jox yer bi sax ngir nga sàmmee ko sa maqaam bi loolu sufiyaan koy tuddee martaba loolu la sufiyaan koy tuddee martaba jërëjëfee Mawlaana Baay Ndaw jërëjëfee Mawlaana naa bàyyi na moom su waraana wax ci yàlla moom bu waraana wax ci yàlla du jabar du doom du dëkkandoor di imaam dara tënku ko ci du jabar du doom du dëkkandoor di imaam dara tënku ko yal nañ yàlla doon loo ci moom wiraasa yal a yàlla doon loo ci moom wiraasa boobu ndax mooy dëgg an allahu allahu huwa alxaq ndax loolu mooy dëgg wallaahu anal xaq yàlla moom mooy dëgg yàlla moom moom mooy dëgg dëgg moom mooy yàlla dëgg moom moom mooy yàlla kon fu ñu nekk rek mën nañu waxtaane yàlla kon fu ñu wax nekk fu ne war nañ waxtaane yàlla boobu kon ñu ngi nuyu suñu yaay ji bu baax kon sëriñ baa ngi nuyu suñu yaay ji bu baax di ko ndokkeel ci tariqa tijaan di ko ndokkeel si tariqa tijaan ci njabootam gi nga xam ne ñu ngi ci tariqa tijaan ak njabootam gi nga xam ne ñu ngi ñaan yàlla jotaay bi yàlla gën ko barkeel di yàlla jotaay bi na yàlla ñu ko barkelal yi si zahir ak si baatin si barke Bañes si barke Bañes barke Cheikh Tidiane barke Cheikh Tidiane barke yonent yàlla Muhammad barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. guddi na waaye daal euh, ñu ngi bëggoon a waxtaan ci ñu ngi ndekkal Baye Ousmane. sëriñ bi mu ngi ndokkeel Baye Ousmane Diop. ci xam-xam dëgg-dëgg bu leer bi mu fi wax. ci xam-xam bu leer bi mu fi wax. buy wax rek da ngay kàddu yi mu ngi saf Baye Ndaw. buy wax rek da ngay dégg kàddu yi mu ngi saf Maulana Baye Ndaw. comme waxtaanu Seydina Amar bi yàgg na guddi àjjuma la woon. waaw waaw moom it euh, saf na Baye Ndaw comme waxtaan seen naa war bi passé guddi àljuma bii moom it saf na Mawlana Baye Ndaw Baye Ndaw ca waxin wa ak teey ba Baye Ndaw sa waxin wa ak teey ba ak kat bunt boobu fàttewu ma ko maa ngi ciy ñëwaat ak bunt boobu kat fàttewu ko mu ngi ñëwaat loolu yëpp dégg naa ko ci waxtaan bi loolu yëpp dégg na mu ngi siy ñëw ñu ngi dégg na ko ci waxtaan bi dégg na ko si waxtaan bi yal na yàlla gën a barkeel yal na yàlla gën a barkeel waaw si barke bàñes si barke bàñes yàlla may ñu xam-xam boo xam ne buy jëriñ la yàlla may ñu xam-xam xam ne buy jëriñ la si zaahir ak si baatin si zaahir ak si baatin baay dafa wax ne baay dafa wax ne aana sa nii rabbi la daa kindiyaa aana sa nii rabbi la daa kindiyaa lu topp ci bayti bi aw dafa sirr la hindiyaa bàyyi nee na aanasani rabbi bàyyi ne aanasani rabbi la daa kindiya la daa kindiya wettile na maanaam maa ngi deyaaleeg sama borom ca Kindiya. maa ngi deyaaleeg sama borom ca Kindiya. yàlla dénk ma fam ay maqaamam foofa ca Kindiya. yàlla dénk ma ay maqaamam foofu sa Kindiya. ay surrum mu dénk ma ko ca Kindiya. ay surrum mu dénk ma ko foofu sa Kindiya. xoolal wax jooju nu mu neexee. xoolal wax jooju nu mu neexee. aana sa nii rabbi la daa Kindiya. aana sa nii rabbi la daa Kindiya. deyaale naag sama borom ca Kindiya. deyaale naag sama borom sa Kindiya. bu fekkente ne yeewoo ci yàlla. bu fekkente ne nag yow yeewoo si yàlla. bëgg bàyyi ba gëlëm ci moom. bëgg bàyyi ba gëlëm ci moom. boobaa Saaliw li mu lay wax mooy. boobaa Saaliw li mu lay wax mooy. lan mooy kindiyaa ci xaqiqa. lan mooy kindiyaa ci xaqiqa. ah kon kindiyaa la bàyyi deyaaleeg boromam. kon kindiyaa la deyaaleeg la bàyyi deyaaleeg boromam. léegi nag lan mooy kindiyaa. léegi nag lan mooy kindiyaa. Saaliw rek moo ko xam. Saaliw rek moo ko xam. yooyu nag ak a ci maj moo xalaat yooyu nag ak a bëri si maj moo ri xalaat Ndaw moo tax jërëjëfee Mawlana ñaan daal yal nañu yàlla defal la Baye ñaanoon mu ngi ñaan daal yal nañu Baye yàlla defal la Baye ñaanoon fajal fuaadi ka saqarin fajal fuaadi ka saqarin wala tadirhu kabaani wala tadirhu kabaani yow yàlla yow yàlla defal sama xol bi mu mel ni montagne defal sama xol bi mu mel ni montagne nekk xeer wu dëgër nekk xeer wu dëgër mbooleem nëx nëxi jamono yi dara du ko ci mën a mokkal mbooleem nëx nëxi jamono yi dara du ko ci mënal dara yal nañ yàlla defal loolu yal nañ yàlla defal loolu ci barke baañes waaye comme guddi na waaye comme guddi na boobaa ñu jël kindi yaa daal daal di koy daal di koy bàyyi ba beneen daayira boobaa ñu jël kindi yaa daal daal di koy bàyyi ba beneen daayira boobaa ndey cumbeeg uh, suñu yaay ji kontaan boobaa ndey cumbeeg suñu yaay ji kontaan na moom sëriñ bi kontaan bu baax ci daayira bi. mooy waxtaanu daayira bañ defoon ci kër sëriñ bi. xam nga loolu mooy waxtaanu daayira bañ defoon ci kër sëriñ bi. bàyyi ne yàlla nañ yàlla musal ci pexeem xam yàlla. bàyyi ne yàlla nañ yàlla musal ci pexeem xam yàlla. kon pexe kon xam yàlla da nga gis ne am na ay pexe. kon xam yàlla da ngay gis ne am na ay pexe. waaye ak a ay pexe. waaye nag ak a bëri ay pexe. yooyu nag ci pexe ci pexe xam yàlla yi ci la bokk. yooyu nag ci yàlla yi la bokk. boobaa téeméeri at rek yaa ngi xaatir ci kindiya boobaa téeméeri at rek yaa ngi xalaat si kindiya ak kindiya moom Saliou mi ko wax rek moo xam lan mooy kindiya fekk kindiya moom Saliou mi ko wax rek moo xam kindiya fekk kindiya nag ab dëkk su ndaw la fii fekk kindiya moom ab dëkk bu ndaw la fii rek asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Baye Malick Ndao